ponk bu mu julli seen gaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ndawi réew mi ca pencum ndawi réew yi ngir càmbar saatu réew mi député yi la ñu convoqué tey ji ci assemblée nationale ngir révision ci constitution bi Sud Quotidien bi na ci xëtamu njëkk ne assemblée nationale mooy jano ak boppam convoqué nañu député yi ci session extraordinaire ngir projet de loi bi jëm ci modifier loi électorale bi code électoral bi la ca nekk bokk na ci éligibilité bu Karim Wade ak bu Khalifa Babacar Sall bokk na ci indi ay jooyandi ci parrainage bi naka noonu it jox njiit réew mi sañ-sañu mu mën a ko soobee Walf Quotidien bind ne député yu taxaw ak député yu wàllu ñoo bañ leen war a rende duudu wàdd ci yéenekaay bi muy wax ne modification yu ñuy fexe ci article 87 bi bu jàllee musiba mbaa kumba lay doon Thierno Alassane Sall bu République des valeurs feelu ko ci journal bi bay wax ne lépp pexe Macky Sall la ndax donte teg na ci suuf waxi troisième mandat waaye taxul mu génne ci am xelam mbiri pouvoir ci le quotidien moom Thierno Alassane Sall ma ngi fay wax it ne bu kenn xaar ci moom mu voté loi bi Bougane Gueye Dany bopp di leeral ci journal La Tribune ne Macky ay pexe mooy tas assemblée nationale bi ngir nguur gi des ci loxoy waa Bokk Yaakaar ginnaaw élection présidentielle daje nañu assemblée nationale bi mu di quatorzième législature bi député ca nekk ñoo ngi dund seen waxtu yu mujj jamono ji journal lay fa ne ko moo taxit bari ñu yëkkati seen kàddu di sàkku ci député yi ñu freiné Macky Sall gàntal ay pexem bañ woote modification yi ñu wax ci article bu constitution bi bokk ci ñoom Doudou Wade Abdoul Mbaye ak Cheikhnou Alassane Sall Vox Populi di laaj ndax projet de loi boobee jur coow dee su ko rocc retiré ko ndax réeroo loi bi ngir wéy di indi ak dal ci réew mi lu mën nekk la teg na ci di xam le ne assemblée nationale bi kenn du ko tas président Macky Sall leeral na ko kerak ca kanamu député yu Benno Bokk Yaakaar yi waaye mën naa may opportunité président bi ñëw ëllëg mu mën a tas assemblée bi heure bu ko soobee ñi naan pexe Macky Sall mooy couplé élection présidentielle ak élection législative yi l'observateur nee nañu maître Oumar yu nee na Macky Sall nee na du ko def ñu def demi tour dem ci journal bés bi le ngir wax ci candidat bi Macky Sall war a ñeent ñi ñuy wax yéenekaay bi nee nañu Macky Sall envoyé na lañ te Moustapha Niass ngir mu auditionné leen secrétaire général bu AFP di Moustapha Niasse journal bi nee nañu auditionné na Amadou Ba déglu na Abdoulaye Daouda Diallo déglu na Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr moo ci des te moom suba ci talaata ji ci la ko Moustapha Niasse war a déglu ci candidat yi ñuy wut ki war a wuutu Macky Sall le témoigne ngi ñuy wax ne Abdoulaye Daouda Diallo moo jekku gaañ bu doon course la ñu ne moom président conseil économique social environnemental mooy fas bi gën ngir majorité présidentielle bi ni mu jàpp ne candidat bi Macky a mel ne qualité yooyu yëpp bu ci kenn rek la gis ne daje nañu ci moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo lango candidat yu Benno Bokk Yaakaar yi mu ngi gën di yaatu ndax journal L'As xëy ne di ñu xibaar ne am nañu jàpp ci réew mi ni kii di Mansour Faye kenn gënu ko yey ci doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñi gisee nu ni mel la Sénégal nee nañu bokk la ci ay responsable APR yu fare ca Kaolack ca Kaffrine ca Koungheul ak ca Malem Odar ñoo ngi leeral ci biir yéenekaay bi di L'As fa ñu joggi ba tax ñu jàpp ne ministre transport terrestre ak désenclavement di Mansour Faye moo war a doon candidat Benno Bokk Yaakaar candidat yu Benno Bokk Yaakaar nañu ci dolli Moustapha Diop ndax moom it ma ngay lijjanti boppam ubbil yéenekaay bi ajjuma ji wees rek bi nee nañu ma nga woon ca Touba ak ca Tivaouane doon fa sàkku ji ñaan ministère microfinance gi mu jiite woon ak financement yi mu doon joxe ci biir réew mi direct ci news mi ngi wax ne bokk na ci li ko may doole rax ci dollit ku am base politique la ca Louga ñu dem te ànd ak l'observateur xooli ji fa ay njaboot yuy dund aw autis jamono ji liggéey gi jël ci bakkan ci immigration clandestine gi di mbëkk mi l'observateur nee nañu gox bii di Thiawlène nekk ci Rufisque li mu ci ñàkk ci doom bari nañu Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yeen tamit ci ñi ngeen àndee